أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومهو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yi ci yàlla ginnaaw bu ñu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala ñu ngi ak yéen ci niñ leen ko baaxoo di defal mbokk yi dugg nañ ak yéen ci tomb bu wees te mooy charxu kitaabu tawxid ñu jël téere bi nga xam ne téere bu màgg la muy téere tawxid bi nga xam ne mooy téere cheikh al islam muhammad ibnu abdul wahab ñu jéem leen ko defal ay dars di ci jàngalante ak yéen di ci jàng di ci jàngalante ak yéen ngir ñaan yàlla tabaraka wa taala mu dekkilaat li ràpp li maxe li dee ci xeet wi te mooy seen pas-pas te mooy seen tawxid mbokk yi xam ngeen ne fa inna tawxid allahi subhanahu wa taala huwa awjabul waajibaat kennal yàlla tabaraka wa taala dafa bokk ci mbir yi nga xam ne mbir yu am solo la mbir yi ëpp solo ci lislaam tawxiid ci la bokk tey xeet wi lépp lu ñu war a wax lépp lu ñu war a def lépp lu ñu war a jàngal nit ñi tawxiid moo ci war a jiitu moo tax mu ne huwa awjabul waajibaat li gën a war te nekk warugar am importance mbokk yi tey mooy ñu fàttali xeet wi ñu fàttali jullit yi ñu fàttali nit ñi tomb bu màgg bi nga xam ne moom mooy tawxiid wa huwa al asaas li jamii al amal mbokk yi fondement pied première brique yi ñu war a teg pour jéem a dëgëral xeet wi jéem leen baaxal jéem leen delloo ci seen diine liñ ci war a njëkk a def mooy jéem a tabaxaat pas-pas yi jéem a tabaxaat kennal yàlla jéem a tabaxaat wéetal yàlla gi tabaraka wa taala ndax xeet wi mën a delluwaat ca xeet wi nga xam ne moom la fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi woon te yaroon leen mbokk yi tawhid mooy premier pied tawhid mooy xeer mooy pied mooy fondement bi nga xam ne su ko xeet amee rek xeet woowu dañuy baax falaa yaqbalu llahu ayu amalin duuna ndax yàlla du nangu benn jëf bu doomu aadama jëf te tawhid jiitu ko soo jullee te amoo tawhid sa julli baaxul soo wooree te amoo tawhid sa koor baaxul soo ajee te amoo tawhid sa aj baaxul soo génnee azaka te amoo tawxiid kenn loo yàlla tabaraka wa taala sa azaka boobu moo pënd ak poussière yam mbokk yi julli li muy màgg màgg màgg màgg bu àndul ak tawxiid yàlla du ko nangu mbooleem jëf yi doomu aadama di jëf falaa yaqbalu llahu ayu amalin duuna yàlla tabaraka wa taala du nangu benn jëf bu doomu aadama di jëf di di ci ut si tiyaaba di ci sàkku ngërmal yàlla jëf jooju yàlla du ko nangu lu dul mu am tawxiid ayuhal ahbab wala salaaha wala saada fi dunia wala najaata fi alaxira illa bi du ñu mën a baax xeet wi du ñu mën a baax ngëneel du ci am yiw du ci am du ñu mën a am texe àdduna du ñu mën a am kontaante yàlla ëllëg alaxira ñu rëcc safara dugg aljanna lu dul dañoo am tawxiid looloo tax gis nga tey lu ñu defar defar defar defar lu ñu jàngale lu ñu leeral lu ñu yar te yaruñu ko ci tawxiid jàngale ñu ci tawxiid mbir yi dafay yàqu loolu ngeen gis tey moom moo am nit ñaa ngi jàngale nit ñaa ngi leeral nit ñaa ngi yar waaye comme dañoo bàyyi tawxid moo tax lépp yàqu fala salaaha wala saada ayuha al ahbab fi dunya wala najaat fi axira illa bi dara du mën a baax duñu mën a am texe adduna am texe alaxira lu dul ci kennal yàlla tabaraka wa taala duñu mën a mucc ëllëg yowmal qiyaam rëcc ci safara dugg aljanna lu dul ci kennal yàlla tabaraka wa taala lu dul ci tawxid looloo tax gëm gi ñu gëm ni importance bi nga xam ne tawxid moom la am moom la am wa imanan minna bi ahamiyati zalik gëm gi ñu gëm ne tawxid mooy defar nit ñi tawxid mooy baaxal tawxid mooy tax nit ñi am texe àdduna am texe àllaaxira gëm giñ ko gëm moo tax ñu jóg mbokk yi tànn téere bii gëstu ci diisoo ak ay mbokk yoo xam ne sant nañ ñu pour ñu taxaw ci leeral tawxid moo tax tey ñu jóg jël téere bii pour di fexe waxtu wu nekk ñu am ci ak yéen dars pour jéem a fàttaliwaat li ndono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam pour jéem a fàttaliwaat woote yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax kat yonent bi wooteem yépp kennal yàlla tabaraka wa taala la mbokk yi jóg nañ di jéemant di jéem a jàngalante suñu biir di jéem a leeral madda bi nga xam ne mooy madda tawxid te mooy matière bi nga xam ne moom mooy kennal yàlla tabaraka wa taala lu tax mbokk yi ñu war ko jàngale lan moo tax ñu war ko leeral at tawxid huwa xaqullahi ala al ibad aq yi nga xam ne moom la jaam ñi yoreel yàlla tabaraka wa taala du lenn mbokk yi lu dul tawxid jaam ñi àq bu gën a màgg bi ñu yoreel yàlla mooy kennal ko mooy wéetal ko mooy teg ko palaasam bañ ko dandale kenn wala lenn moo tax doomu aadama yi fekk lii leerul ci ñoom dara du mën a baax ci seen dund ndax tawxid wa haqullahi ala al ibad àq yi nga xam ne moom la jaam ñi yoreel yàlla du lenn du julli du koor du azaka du aj màkka du lenn lu dul kennal ko moom yàlla tabaraka wa taala àq la boo xam ne yàllaa ko moom suñu xamul àq yàlla duñ ko mën a jox àqam moo tax lee warugar la ci ñun ñu daal di leeralal doomu aadama yi lan mooy tawxiid waaye warugar la ci bépp jullit mu war ko jàng xam ko lan mooy tawxiid pour mu jox yàlla àqam bi mu ko yoreel mbokk yi bëgg nañ ci tomb bi leeralal jullit yi maarifatu tawxiid wa fadluhu bëgg nañ leeralal jullit yi lan mooy tawxid waaye lan yan ngëneel ñoo nekk ci biir tawxid doomu aadama yi bu tawxid leerul ci ñoom tawxid saa yow déggee baat bi mooy kennal yàlla mooy wéetal yàlla def ko palaasam moom kenn cundum bañ ko dendalee kenn wala lenn loolu ay ngëneel da cee nekk yu rëy rëy rëy ginnaaw ba ko doomu aadama bi xamee mbokk yi bëgg nañ jàngale tawxid lu tax ba jullit bi mën a xam suñuy dàmbali di defar suñuy tàmbali di woote pour baaxal xeet bi fan la ñuy tàmbalee albadu bi tawxid fi daawa allahu akbar wootekat yi war nañu xam ne seen woote du mun a am résultat seen woote du mën a baax même bu ko nit ñi déggee suñu wuyusee suñu tàmbaliwul ci tawxid nañu yëg ne ci tawxid ci la doomu aadama yi di déggee wuyusi mbir mi baax waaye ci ñàkk tawxid ku ci wuyusi ci réer nga dugg ku ci dugg ci lëndëm nga dugg te ku ci dund ku woote ku wuyis ci réer nekk ci lëndëm dund ci ba dee boo dee dajeg yàlla tabaraka wa taala te du def dara lu dul tàbbal la safara kon ayuhal ahbab mbokk yi ñun ñëpp nañu xam ne ñun jàngalekat yi yéen jàngalekat yi yéen yarkat yi yéen wootekat yi tomb bu njëkk bu ngeen war a tàmbalee tabax mooy ad daawatu nnaas daawatu nnaas ila tawxid mooy ñu woo nit ñi ci ñu kennal yàlla nit ñi bu ñu leen woowee ci kennal yàlla ba ñu jox yàlla àqam jox yàlla gëddëm teg yàlla palaasam ku ñu gisati teg la sa place xam ne yow kat doo yàlla waaye mbindeef nga tey lan moo gis lan ngeen gis ci ay xew-xew yu ci Sénégal doomu aadama ñeme ñeme jël micro naan mu nii rek munkar dañoo jébbalu ci sëñ diw ah naan Malick yàlla dafa jébbalu ci sëñ diw sëñ diw ne ko tëjal ma safara mu së mu tëj mu ne ko tegal ma fi caabi ji mu teg caabi ji ci loxoom su jullit doomu aadama ñemee gëm ne malakal mawt wala munir ak munkar wala Malick wala Ridwan wala Jibril alayhi salaam dafa jébbalu ci diw mbokk yi ma ni réer ak ñàkk tawxiid weesuwul doomu aadama gëm ne malaaka dafa jébbalu ci nit malaaka jébbaluwul ci yoon ci yàlla muhammad malaaka jébbaluwul ci yoon ci yàlla ibrahim jébbalul ci nuur jébbalul ci moussa jébbalul ci isa alayhi salaam te ñooy ñooy ulul azmi waaye malaaka di jébbalu ci sëriñ malaaka jébbaluwul ci sahabatul kiram jébbul malaaka yi jébbaluñ ci aboubacar jébbaluñ ci ousmaan jébbaluñ ci ali jébbaluñ ci omar amuñ lu ñuy def lu dul di jébbalu ci mbindeef mbokk yi ma ni réer weesuwul ab jullit di gëm ne malaaka dafa jébbalu ci ab doomu aadama bu dëkk Sénégal yal nañ yàlla jubal yal nañ yàlla won dëgg mu wërsëgal ñu topp ko yal nañ yàlla won neen mu wërsëgal ñu bàyyi ko mbokk yi dañoo war a jàng tawxiid lu tax mooy ndax tawxiid mën a dugg sunu biir xol ñu xam dëgg-dëgg bu baax maana shahadatu an la ilaha illa allah ndax loolu kat waru gar la feek xamuñu maana shahadatu an la ilaha illa allah feek jànguñu tawhid ba xóot ci ba mbir ñi mën a leer bu baax a baax ci suñu kanam ci ay bokkaale rek la ñuy dëkk dañuy dëkk ci bokkaale dund ci bokkaale dee ci bokkaale dugg safara ci bokkaale looloo tax mbokk yi ñu war a xóot xóotal suñuy àlluwa xóotal suñu dégg-dégg xóotal suñu gis-gis ci jàng ba mën a leer lu mën a leeral la ilaha illallah muhammad rasulullah lan lay wund lan lay tekki ba feebar bu bon bi nga xam ne mooy bokkaale ku ci dee yàlla nar laa lakk ndax yàlla nee na duma ko baale innahu man yushrik billah faqad harama allahu alayhi aljanna wa ma'wahu nnar wa ma lizalimina min ansar borom bi tabaraka wa taala nee na képp ku ma bokkaale safar nga jëm kenn mënul fexe ba mu musal la kon nag loo xam ne bu ko doomu aadama defee yàlla du ko baal war nañ koo jàng ñu xam loolu lumu ñu mën koo moytandiku mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala war nañu jàng tawxiid ci ay mbir yu baree baree bari war nañu jàng tawxiid pour ñu xam lan mooy bokkaale ñu mun koo moytandiku bu baax a baax a baax ñu jàng tawxiid ndax ñu mun a xam adilla yi nga xam ne moom mooy yàq tawxiid suñu jàngee tawxiid bu baax danañ xam lan mooy yàq tawxiid ñu mën a am tawxiid mën a moytandiku li yàq tawxiid loolu moo tax ñu war a jàng ñu war a xóotal suñu àlliwe ci feebar bu bon bi nga xam ne bokkaale la ñu mën a jàng bu baax a baax tawxiid ba ñu mën a ràññee lan mooy bokkaale ñu am tawxiid ñu mën a moytandiku bokkaale mbokk yi war nañoo jàng tawxiid ndax lan ndax ñu xam xeetu bokkaale yi xeetu bokkaale yi nga xam ne day lore te sirkul akbar sirkul asgar yooyu yëpp ñu mun koo ràññee ñu mun koo xam ñu xam lan ngay def yàlla gërëm la ana lan ngay def yàlla dañ ci yow mere la yób bind la ci waa safara ba àddina bi di jeex ngay dund ci àdduna di bokkaale ba nga nar a dee dem safara kon war nañu jàng tawxiid ndax mbir yi ñu mën koo ràññee mu mën a leer ci suñu kanam ñu mën a xam ne dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg bokkaale dafay alag doomu aadama bokkaale dafay yóbbu nit safara bokkaale day tax doomu aadama sax ci safara dootu ci génneti mbokk yi war nañu jàng tawxiid ndax ñu xam cosaan lan mooy mbir yi lan mooy cosaan woote lan moo tax yàlla yónni yonent yi walaqad baasna fi kulli ummatin rasul an ibudu llah wajtanibu taaxuut yàlla nee na xeet wu nekk yónni naa fa ndaw yónni naa fa yonent ndax ñu mën maa jaamu ñu sori xërëm yi ñu bañ maa bokkaale ñu bañ maa dendale ak kenn wala lenn mbokk yi war nañu jàng tawxiid ndax ñu mën a dooleeku yaqiin mën a dooleeku kóolute jullit bi mën a dooleeku am kóolute bi anna allaha huwa almustahiqu lil ibada wahdahu duna siwa jullit bi bu jàngee tawxiid ci la yëg-yëgam di yokk ci la yaqiinam di yokk mu am yaqiin bu leer ne yàlla dong dong dong moom la ñu war a jaamu yàlla dong la ñu war a màggal yàlla dong la ñu war a gëm yàlla dong la ñu war a bàkk di ko kañ moom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu moom yàlla tabaraka wa taala moom dong dong la ñu war a jaamu waruñu jàng waruñu jaamu kenn kenn ku dul moom looloo tax doomu ndey mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala ñu tànn téere bi muy kitaabu tawxid téere bi nga xam ne ci téere yi ëpp importance ci dundu jullit la bokk nga xam ne ki ko taalif mooy cheikh al islam muhammad ibnu abdul wahab cheikh al islam saa yoo ko déggee mooy kilifa la ku màgg la ku rëy la ndax baat bi kenn du ko tuddee am como baat bi kenn du ko tuddee am yambar baat bi ku liggéeyal lislaam baat bi ku liggéeyal diine baat bi ku liggéeyal yàlla tabaraka wa taala ku leeral yoonu sunna moom dong lañ koy tuddee muy seex al islaam muhammad ibnu abdul wahab moom seex al islaam muhammad ibnu abdul wahab ibnu suleyman at taymi wulida fi baladil uyayna mu ngi juddoo benn dëkk ci dëkku arabi saudi di bu dëkk bu tudd uyayna qurba riyad dëkk baa ngi nekk ci wetu Riyad ci wetu capitalu Arabie Saoudite tey ci ban at la juddu moom sëriñ bu màgg bi ci 1115 la juddu atum junni at ak téeméeri at ak ñaar fukki at ak juróom ak fukki at ak juróom moom sëriñ bu màgg bi mooy Muhammad ibnu Abdul Wahab ci la juddu ci atum 1115 ci la gane àdduna waaye xafisa alquranul karim mokkal na ci alquran lu baree baree baree bari dafa mokkal alquran moom sëriñ bu mag bi qabla buluuxihi asara sanawaat balaa muy am fukki at ci dundam bi mu nekkee ndaw nekk xale bu tuuti am fukki at ci la mokkal alquran yépp mbokk yi sëriñ bu mag bi muy muhammad ibnu abdul wahab ana kan moo nekkoon sëriñam wa qara ala abihi fi lfiqi baayam bokkoon na baayam bi ko jur way juram bokkoon na ci ay bokkoon na ci sëriñam bi ko jàngal fiq wa kaana fi sigarihi kasirul mutalaa moom ci dundam moom sëriñ bu màgg bi muy muhammad ibnu abdul wahab ku bëri woon lu muy yër ay téere la bokk na ci sax téere yooyu mu yër muy kutubul lugatul arabiya téere téere yi nga xam ne day day tax nga mën a làkk arab nga mën a dégg arab nga mën a comprendre arab waaye yër na tamit ci téere tafsir yi yër na téere hadis yi yër na téere yi nga xam ne dafay wax ci borom xam-xam yi bind ko muy wax lu baree baree baree bari ci cosaanu lislaam moom sëriñ bu màgg bi jaar na ci loxo baayam waaye yër na téere yi ñu leen wax yépp téere yi làkk arab liir na ko téere tafsir yi yër na ko waaye jàng na téere hadis yi liir na tamit waxu borom xam-xam yi nga xam ne dañuy leeral cosaanu lislaam lu bare bari moom sëriñ bu mag bi muy cheikh al islam muhammad ibnu abdul wahab waaye ci jàng boobu mu jàng fa saraha allahu sadra fi maarifati tawxid yàlla yaatal na ci dënnam yàlla leeral xolam leeral xelam ba mu mën a màng ci téere yooyu mu jàng ci téere yàlla ci xadisu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci waxu borom xam-xam yooyu mu mun cee xam tawxid naka la ñuy kenn la yàlla naka la ñuy wéetale yàlla tabaraka wa taala wa jadda fi talabil ilmi moom sëriñ bi ku sonn la ci sàkku xam-xam wa huwa fi sinni mubakkira ci bi mu nekkee ndaw ci jamono yooyu ci la sonn pour am xam-xam ci jamono yooyu ci la sonn jàng ba mën a ràññee ana lan mooy bokkaale ana lan mooy tawxid wa naa la xazan waafiran minhu am na cër bu rëy rëy rëy rëy ci xam-xam bi nga xam ne moom tey bokk na ci àddina bi ci ñu ko jàngale ndax téereem bi nga xam ne mooy kitaabu tawxid téere la boo xam ne leeral na lu baree bari ci àddina bi nan la ñuy kennalee yàlla ku bëgg a wéetal yàlla tabaraka wa taala yan yoon ngay jaar yan feebar ngay moytandiku yan musiba ngay sori yan wootekat ngay sori pour nga mën a am tawxid moom sëriñ bu màgg bi su ma raxala gis nga bokk na sax ci li tax mu màng xam-xam tukki na dem basra tukki na dem hijaaz dem na saam loolu lépp ngir lan li tazawudi minhu ngir yokk xam-xamam ngir yokk àlluweem ngir yokk gis-gisam ngir yokk xam-xamam raa rahimahullahu anna baad al bilad keroog ba mu jógee ba mu gis ne yenn ci ay dëkk yi ko wër ak dëkk yu mu dund xayyama alayha shirk bokkaale tabaraka wa taala bokkaale yàlla tabaraka wa taala samp na fa bidaa samp na fa xuraafaat ay caaxaan ay lëba ki léppoon diw moo jébbalu ci jibril jibril dafa jóge fa la indi benn moket nag caaxaan yooyu ba ko sëriñ bi gisee ci la jóg di wër daan nay gaawtu di wër ci biir dëkk bi ut ñu mu àndal bokk na ci ñi mu àndaloon mooy al imam muhammad ibnu saud rahimahullah ànd naag buuru arabi saoudite ci jamono yooyu daa di leeral jóg di leeral tawxid jóg di leeral sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jóg di li jàngal mbokk yi ana lan mooy shirk ana lan mooy bidaa ana lan mooy xiraafaat pour ñu mën ko moytandiku moom sëriñ bu mag bi muy seex al islam muhammad ibnu abdul wahab yaamuru bil maaruf danaan digle lu baax wa yanha anil munkar muy tere lépp lu ñu bon lépp lu sib lépp loo xam ne dafa wuuteeg pas-pas lépp loo xam ne dafa wuuteeg alquran lépp loo xam ne dafa juuyoog sunna yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom sëriñ bu màgg bi jóg na taxaw di ko jàngale di ko leeral pour doomu aadama yi mun koo sori wa jadd fi daawati ila tawxid moom sëriñ bi ku sonn la ku def effort ku yulli ay coono la pour doomu aadama yi mën a kennal yàlla tabaraka wa taala pour àq bu mag bi nga xam ne mooy xaqullah alal ibad àqu yàlla ci jaam ñi pour doomu aadama yi mën koo xam doomu aadama yi mën koo comprendre doomu aadama yi mën koo leerlu ba sori bokkaale yàlla tabaraka wa taala moo tax moom wa jadd fi daawati ila tawxid ku sonn la mbokk yi ci woote jëme ci kennal yàlla tabaraka wa taala waaye wa nahyi anil munkar ku sonn la pour tere lu bon pour tere bokkaale tere bidaa tere ay xuraafaat waaye wa nahyi an ibadatil asjar ku sonn la pour doomu aadama yi bañ a jaamu garab samp garab di ko jaamu ah samp xeer di ko jaamu jaamu bàmmeel jaamu xërëm xoolal tey doomu aadama yi mbokk yi ni ñuy wëre ci ay bàmmeel tiim ci ay bàmmeel di yuuxu di jooy sànni ci bàmmeel xaalis allahu akbar la hawla wala quwwata illa billah yàlla na yàlla jubal mbokk yi Sénégal gi jàmm du fi mën a am fekk bàyyiwuñu bokkaale Sénégal dañuy bokkaale comme jamono nuux ni ñuy bokkaale di wër ci bàmmeel yi di wër ci xërëm yi di tabax ay bàmmeel di ci sànni xaalis nit ñi ñëw di ziyaare bàmmeel yi di yuux di fotu bàmmeel yi di ko dugal ci seeni portable mbokk yi feebar bu bon bi fekk doomu aadama yi sori wuñ ko dañuy nax seen bopp dunduñu tawxiid te ku dundul tawxiid ci riir nga nekk te balaa ngay xam ne da ngaa riir nga dee ku ci dee rek boo dee yàlla dalay lakk ndax yàlla tabaraka wa taala moom li mu bëgg mooy ñu kennal ko li mu bëgg mooy ñu wéetal ko li mu bëgg mooy ñu jaamu ko moom kenn ñu bañ koo dendale kenn wala lenn mbokk yi moom sëriñ bu mag bi xaarabal xuluwu xeex na sax ëppal ci diine ëppal xoolal jël nit koo xam ne waxuma la sax yonent koo xam ne du sahaaba koo xam ne du taabiin koo xam ne du dara simple doomu aadama kese jàng ne am na xam-xam ku baax la nañ ñu wax ne ku baax la anzilu naasa manazilahum waaye jël nit di ko yéegal rombal ko sahaaba yi rombal ko yonent yi rombal ko malaaka yi dem ba di ko teg ci palaasu borom bi tabaraka wa taala la hawla wala quwata illa billah lan moo waral loolu mooy riir lan moo waral loolu mooy sànkute dugg ci bokkaale dugg ci feebar bu rëy bii rek moo tax ñu jël doomu aadama yi di leen yéegal waxuma la ñu yéegal nit ba rombal ko yonent yàlla muhammad mbokk yi xeet wi dañoo xam dañoo war a xam ne yonent yàlla muhammad moo gën ñépp naka la ñuy rombalee doomu aadama jullit yonent bi sallallahu alayhi wa sallam réer weesuwul loolu lu nit màgg màgg màgg màgg màgg muhammad moo la gën a màgg sallallahu alayhi wa sallam naka la ñuy jëlee benn doomu aadama benn nit ñu réyal ko màggal ko peinture ko capp-cappal ko raax ko di ko di ko rombale yonent yàlla muhammad ban àdduna moo nuy tiim ban asamaan moo nuy tiim ban suuf la ñuy dox bu ñu jëlee nit rombal ko yonent yàlla muhammad alayhi salatu salaam dëkk bu boo xam ne dañu ne seeni nit ñoo gën muhammad seeni boroom xam-xam ñoo gën sahaaba ya dëkk boobu nu fa jàmm di amee dëkk boobu nu ñuy amee tawxid ci bokkaale la ñuy dee te ku fa dee boo dee ci li yàlla yóbbu la safara moom sëriñ bu mag bi xeex na jaamu garab xeex na jaamu ay xeer xeex na jaamu bàmmeel xeex na jaamu xërëng xeex na ëppal ci diine wa xadara minhu li xuturatihi jóg na di mooy tindikuloo nit ñi yii doomu aadama yi dañ ko war a mooy tindiku jóg na di soññ doomu aadama yi nañu gaaw jëm ci kennal yàlla tabaraka wa taala waaye yàlla tabaraka wa taala jëriñ na ci coono gi mu sonnoon moo tax boroom xam-xam yi woote foog ñu nangoo sonn ni sëriñ bi sonne woon kon ñu nangoo sonn ci kennal yàlla woote ci jeexal ci suñu dund ndax yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam fukki at ak ñett 13 ans la def makkatal mukarram di woote ci tawxiid di woote ci kennal yàlla moo tax tey loo gis mooy ba mu tàmbalee di woote wooteem am njëriñ ñu ko wuy si yëpp ñëpp nekk ay wéetalkatu yàlla kenn nekku ci bokkaalekat mais bu ñu jógee nit ñi di leen julliloo wala ñu leen di woorloo wala ñu leen di defloo yu kenn xamut te jàng lu ñu leen tawxiid lu ñuy am mooy jullikat buy takk béjjën kuy dem màkka kuy sànni ay nen ci mbedd lan la ñuy am mooy jullit buy génn azaka di naan deret di tuuroo deret di ko sangoo te ñaata jullit ñooy sangu ci ay xamb dégg naa sax ci Sénégal ay xalifa général yu am xamb seeni biir kër di sangu waaw soo koy tere ñu ne la sëriñ diw am na ko te mooy sunu sëriñ am na ko sëriñ diw mais ñun dañu war a xam ne sëriñ diw du référence référence bi kenn la mooy yonent yàlla muhammad alayhi salatu wasalaam moom dong la yàlla wax na ngeen ko roy wa ma aataakum rasulu fa xuzu wa ma nahaakum anhu fantahu laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana kon mbokk yi cheikh bi jóg bi mu jóg sëriñ bu mag bi muy seexal islaam muhammad ibnu abdul wahab jóg gi mu jóg ngir xeex lii yàlla dimbali na ko tabaraka wa taala daal di tasaare wooteem ñu bari bari bari bari bari daal di dugg ci tawxid tawxid tasaaroo ci gox yi dugg ci addina bi yépp daal di tasaaroo moom sëriñ bu mag bi taalif na ay téere yu baree bari bokk na ci kasfu subhaat ci ay téeréem la bokk bokk na ci fadailul islaam ci ay téeréem la bokk waaye usulul iman ci ay téeréem la bokk kitaabu tawxid mooy téere bi nga xam ne moom lañ jóg di ci def suñu kéemtalaayal kattan pour jàngalal ko mbokk yi pour leeralal leen ko pour ñu mun a am tawxid bokk na ci téere yi màgg yi nga xam ne tey tasaaroo na ci àddina te bokk na ci ay taalifam yi nga xam ne mu ëpp importance ci taalif yi mu taalif ndax lan ci la jóg di leeral tawxidul ibada tawxid gi nga xam ne mooy tawxid yàlla nekk gi mu nekk yàlla waaye tawxid bi nga xam ne mooy leeral yàlla moom gi mu moom waaye tawxid bi nga xam ne ci lay leerale al asma wa sifaat turi yàlla yi ak ay melokaanam mbokk yi moom boroom xam-xam bu mag bi sonn na ci leeral tawxid bu baax a baax a baax li annahu awalu daawatu rusuli ndax moom tawxid mooy première woote bi nga xam ne yonent yëpp yi yàlla tabaraka wa taala mës a yónni ñu tàmbalee ci aadama ba ñi mujjee ñëw ci kaw suuf ñoom ñëpp seen mission benn mission kese la mooy nañu jaamu yàlla nañu moytu bokkaale ñum ñëpp moom sëriñ bu màgg bi yàlla nañu ko yàlla fayal ba mu seetloo ne musiba tasaaroo na ci réewam bokkaale jaamu xërëm jaamu bàmmeel jaamu garab ci la jóg samp takk kaalaam ci ndiggam jël fasam war ko di tasaare tawxiid di tasaare diine moom boroom xam bu xam-xam bu mag bi ginnaaw ba mu juddoo ci junni atum junni ak téeméer ak fukki at ak juróom mi ngi génn àdduna ci atam 1216 1206 ci la génn àdduna mi ngi gane àdduna 1115 génn àdduna 1206 ca gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon lii mooy téere lii mooy introduction kitaabu tawxid incha allah ci kàttanu yàlla saa yi ñu yàlla di mayee waxtu ak jot dinañ jóg di def ay dars ci téere bu mag bii di ko leeralal mbokk yi di leen ko jàngal di ko jàngalante suñu biir ñu ñaan yàlla tabaraka wa taala mu may ñu tawxid أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته